comme ni leen koy toppale Makan moo leen di def li nga xam ne moom moo di émission yi jëm ci wàllu làmb rawatina yéen ñi nga xam ne yéen ay suivre seen bii di Fekke TV comme ni ma leen koy waxee abonné leen ngeen ñu jëflante ak yéen abonné leen ñu indi leen ay vidéo yoo xam te ni yaakaar naa ne namm ngeen ko kii ñu janool tey nag mbokk yi miin ngeen ko trop ñu ko waxee di làmbaloog bu ñu ko waxee làmbaloog bi nga xam ne kër Kipaaru Boy Niang la yoroo xam lépp ci làmb tey ñu war a waxtaanee moom lu bari muy kan combat Eumeu Sène ak ki nga xam ne moom moo di Tapha waaye dañu waxtaan ci diggante kan Ama Balde ak Modou li nga xam ne moom la ñu ñàkk ak li Ama bëre dimanche lan moo ko xañ na la Ama war na bëree yëpp nañ ci waxtaan làmb ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw Makan ñu ngi lay nuyu di la ziar di la fay di kontaan trop parce que yow man ak yow yàgg nañoo def lii du benn du ñaar du ñett ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa lu làmb bu baax a baax a baax di di gërëm képp koy safoo Fekke TV. tey Ama Balde ñu bëri dimanche bi passé yàlla mi dara tawul jox ki nga xam ne moom moo di Modou Lo ndam li mhm. nan nga ko jàngatee ak nan nga gisee combat waaw avant tout tamit ñi ngi félicité Modou Lo rek parce sport moom sport la bu jeexee jeex na waaw sport la am na victoire mérité na victoire am ñu ngi koy félicité di encouragé Ama di ñaan di ko ñaanal tamit combat yi si teguwaat yàlla may ko si ay ndami ndami ndami ndam defet boobu yem fa di ko xamal ne tamit làmb nii la da nga daan préparé nga ko pendant cinq ans mu metti nga daj ci coono bu ne daj ci sacrifice bu ne entraîné ci ba dee heure boo waajee report am ngay muñ ànd ak sa ngor ba yàlla dogal combat bi ñëw nga bëre ko def erreur nag parce que làmb ji tamit ama juum na ci waaw ndax engagement bi ak fugg bi ak xadar bi ak songu beeg yëpp ërtël bi lépp dëgg la mais dafa bëre loo xam ne tamit waroon na mën a teylu làmb ji parce que précipitation moo ko daal dafa gëdd mootloo benn yoon ñaari yoon Modou loo def deux pas en arrière. mu continuer insister gëdd ko Modou Lo defaat deux pas en arrière. troisième bi Ama daa koy tooñ ci benn wiccax daa di xaru nag daw enchaîné bi muy xaru di jëli Modou Lo booba fekk na am nañ distance boo xam ni presque ndar ak ndakaaru la. si la demee Modou Lo freiné ko ak arrêt gauche. coup bi atteindre ko mu rëy arrière ndax borom jom la. bëgg naa arrière bëgg a dëggal boppam. Modou Lo xam ni kii tamit atteindre naa ko bi dal na ko. Modou gëdd ko Ama bëgg def pas en en arrière bëgg boppam si kawam. daw jëli ko daa koy rëppal léegi bi ama ba mu rëppee ama erreur bi mu def mooy foofu dafa waroon a njett Modou Lo wala mu daw mel ne koy laxasu ci ginnaawam mais da koo bàyyi mu jug bi mu jugee Ama déclenché mboot mais mboot ma ñorul moo daloon Balla Gaye ci Eumeu Sène déclenché mboot moo xam ne ñorul léegi nag bi mu déclenché mboot mi te jàppul Modou Lo roccee ko jël loxoom daa koy sës si loosu Ama daa koy bloqué mbaar ko ama jiitu mu war ko ndomba booba la desoon mooy àggale làmb ji rek te ku rek la ko mënoon àggalee parce que poids bi ama yor ak ni mu ko reposé noonu bu ko doon jéem a ba suba du ko yëngal mu dóor ay coups ama tamit am jom 22 coups ba foofu bàyyi jàmbaar nga parce ay benn ñaar rek da daan bàyyi daal di joxe victoire bi mu leer loolu la bëree dafa juum nag précipitation moo ko daan mais tamit ñi ngi koy ñaanal yàlla loolu bu mu ko dalati bopp nga xaar ko waaw. Pikine mu mu daan ko Ama lan nga jàpp ne moom moo ko daan ci combat boobu. li ma jàpp ne moo ko daan mooy war a daanu rek parce que sunu borom moom bu dee na daanu moom mënoo ci dara parce que da daan da daan déglu adversaire natt la bëreeg yow bi muy bëreeg Malick Malick dañoo sifte rek mu xaru daw songu Ama ërtal ko ñu dóorante ay coup deuxième round bi mu defaat noonu Ama dëggal boppam dóor ko coup mu rot parce que dafa gëm boppam dëggal boppam mais su su ñemewul woon dafa xaar Malick Niang erreur boobu Malick bàyyi lam daan def def leneen ama ah, bàyyiwul lim doon def def na lim daan def mais ak nam ko doon defee. parce que Balla gay 2 bu ku jàngat ci moom lu bëri suy bëree ak Modou Lo dëgg la da ngay dégg Sénégal gépp ne ku ko may mu xalaat du la daan. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne Modou Lo bu conscient wee tranquille xelam nekk si làmb ji mu liir la ay 2 secondes 3 secondes ngeen bëre 5 minutes 10 minutes mhm. asso yi nga indi woon ak action yi nga indi woon mhm. beneen pexe ngay indi mais loolu noonu nga doon def si combat bi mu défendre ko ñetti yoon ñeenti yoon ngeen jéggi saako yi demaat dikk du loolu moo koy daan mën na la mayaat loolu sax si làmb ji mhm. parce que dafa mën a liir combat sens boobu am na ñuy liir combat avant combat mais Modou ci ci biir combat day li def ay benn pas ñaari pa di calculer ay tànki Modou Lo te bu koy jàpp tamit day dóor ku gauche da koy appel gauche indi laaw bi ci droite bi te bu koy dóor droite bi day desal loxoom foofu jàppaale heure bu koy dóor ku rek Modou bu dëggalee boppam répondre Balla yor loxo bi jàpp parce que Modou pour nga jàpp ko faaw nga tooñ ko mu riposter taxaw nga dugal sa loxo jàpp wala nga dóor ko bu kuu bi dal ko balaa xalaat nga daw jege ko mais soo jugee fu sori daw riir ci moom ko ku defoo ko lu ko déstabiliser sooy accident lay gis day lucide da lay xaar da lay tëru. waaw day logique quoi pour day lucide day ànd ak lucidité. Mhm. léegi lucidité boobu mu am na keroog bi ko Ama di jëli bu encaissé woon ku Ama. wala Ama déstabiliser ko wala Ama wàññi distance bi tooñ ko wala mu yëngal ko ñu weccoo. mu taxaw benn place Ama pour mu jàpp ko dina yomb ndax day yóor loxoom rek fekk ko fa. Mhm. mais bi mu koy jëli saa yu nee benn pas Modou day def deux pas si ginnaaw. bu defaatee benn pas Modou defaat deux pas si ginnaaw. Mhm. distance bi bari na mu yor ñaari loxoom pour jàpp mhm. c'est le mot de reculer daa koy dóor gauche bi mhm. gauche bi nag moo xaw a basculer combat bi mhm. parce que gauche bi bi mu ko jëlee su doon may am damay arrière ba jeex am avertissement boo ñëwee ñaari 10 minutes la ñuy bëri xaw ma ñaari 15 minutes damay defaraat sama taxawaay bëre te làmb ji toll nañ foo xam ne Modou Lo bu ñu xëyoon ama jàpp ko fu mu ko jàpp rek wër ko ci kaw asamaan si ah. bu xëyoon jàpp ndigam ko wala mu xëy téye tànkam ko ba mu dëgër këcc ci moom penalty si minute yi njëkk yi gisal Modou ci kaw mais loolu la ci jotut a am Balla Gaye loolu daka daan dal deuxième combat ak Eumeu ko ba mu jeex dugalul loxoom jàppul te da doon gëm ne bu jàppee mu jeex te la mu waroon a jàppee bi ko Eumeu tuusee dafa xaru déclenché mboot moo xam ne ñorul moom it daal di surux bi mu suruxee Eumeu Sène gën kaa oyof daal di njëkk a jóg wër ko ndomba làmb heure ci defee erreur rek day feeñ surtout mbër moo xam ne tamit du n'importe qui parce que Modou Lo bëri naa ku ne bëri naag Bombardier bëri na fi ay tàkkusaan yoo xam doo ko xeebal quoi man faruma ak moom dimanche bu mu bëree yàlla nañ ko daan du sama mbër faruma ak moom waaw Modou Lo mais tamit li nekk si moom ak qualité am ak façon bi mu mënee ak ni mu def ba agsi si làmb dañ ko koy nangul parce que ay jullit lañ ay sportif lañ parce que boo xoolee làmbam depuis kalaaf la gëj a diriger combat kalaaf bi si la jaayee boppam ba jar bi mu duggee cour des grands xam ni gaayee ko sut ëpp ko doole mbaar ko day négocier ay combat mhm. tooñ déglu la wala mu xaar nga ñëw xaru boo xaroo mu bëreeg yow si temps wala mu dégagé la ak ay hypercule bëreeg yow temps bu yàgg jéem laa juumloo daan la mais bàyyi naa diriger mbër ndax dugg na cour des grands mais gars yi dañ koo mbaar asamaan ko léegi nag bi mu demee moom cour des grands dafa dem liggéey doole joo xam ne may na ko résistance boo ko songee mu am lu mu la dékkoo pour mën a naxante ak yow waaw mais Ama tamit jàmbaar la champion la li yàqalu ko dara ñi koy ñaanal di ko encouragé ko xamal ne Pikine a ngi si ginnaawam àdduna a ngi na fee am mais moom la borom jom la boroom fulla ak fayda te soutien de famille la te xol bu rafet la yor day kaf day ree amul ma sàmba amul ma demba wóolu naa jox ñëpp loxo wóolu naa nuyonteeg ñëpp wóolu naa saafonteeg ñëpp boo ko fekkee ak ay xale yu ndaw sax da xam ne ama mii amul benn problème mu day kaf day day communes waaw ku baax la ba tey tamit ci loolu ñuy ñëw ñuy problème mu staff Ama nit ñi ne Ama amul staff d'accord nga wala. waa xam nga doomu aadama tamit du bëre di bëre di bëre di bëre di bëre di bëre di bëre ba agsi si niveau boo xam ne ba muy déparé si Ousseynou Ndiaye ak temps bi muy agsi si temps record la ndax combat am ak Modou Lo boo ko calculé 2019 la taxaw 2008 la dugg ci combat am ak Oussou kon déjà 11 ans la def dab ñoo xam ne jiitoo woon nañ ko ci làmb ay 5 ans. wala ay 4 ans. mu def 11 fekk leen si cour des grands bi te ci biir 11 ans yi raafal na. bëri na fi ay TNT bëri na fi ay combat jànq bëri na fi ak ay moromam. parce que moom Malick ñaa combat jànq la. bi muy dugg TNT di daan tafaatin guy gi zos. yan wul woon maanaa kenn joxu ko woon faveur ci kaw zos ak tafaatin. ci kaw ci kaw tafaatin ak guy gi. ci sos rek lañ ko joxoon faveur bi muy bëreeg Papa Sow di ko daan kenn defu ko faveur xam nga bi muy bëreeg ay Balla Diouf di leen daan joxuñu ko woon faveur yi. combat ma nees noonu combat ma guy gi bu njëkk ba noonu kon moom dafa dafa dafa dafa def maanaam ascension fulgurante dafa rey boppam teel a ak si teel a dëggal boppam ñëw waaw loolu noonu tamit xam nga kenn du ko non négligé du c'est pas non négligeable léegi staff bi doon ànd ak moom di ko gunge muy ba agsi mënoo parce que loolu boo ko waxee dinañ ne la ana ñim doon àndal di daan ñooñu la àndalaat daanu waaye tamit staff daa war di màgg parce que Ama Baldé du mbër moo xam ne n'importe qui la si làmb du n'importe qui moo ko war a côtoyer wala moo ko war a jege wala moo ko war a ërtal à 100 pour cent amaan fi mu toll ci làmb foo ko tuddee ñëpp xam nañ ko bu génnoon léegi jaar ci mbeddu Ndakaar yi fu mu jaar mu inondé ah waaw fu mu jaar mu inondé yàlla defal na ko te dafa rayante ba foofu bu fekkoon dafa toog rek ne Fàllaay mooy sam papa du am su fekkoon ne maay rakk Zil Balde wala maay rakk Papa Balde wala Paate du am loolu mais daa dugg ci làmb indi look bu bees indi fecc mu neex indi arñi ah indi charisme indi xorom di bàq lu neex di bëre ay kombaam di jeex si ay seconde du fa tëneer du fa tëneer benn amateur boo sifflee 19h balaa 19h10 mu libéré la nga ñibbi teew fa amateur tardé lu fa amateur te day bëre mu sotti day fecc day duy stade mbooloo mi ko topp tamit car macha allah xam nga loolu moo ko liggéey kon mënoo day màgg. ba pare day ànd ak ñoo xam ne tamit ci staff bi dinañ la yokk lu bëri dinañ la dooleel dinañ gis kàmb sax ne la dévier dinañ la wax dëgg tamit néew ma waxuñu ko nag mais staff day màgg doomu aadama booy gën di dem staff bi war na di gën a yaatu di gën di màgg xam-xam yi di gën a màcc di gën a sori parce que loolu mooy àdduna parce que nit ki feeg yaa ngi dem rek war ngaa mën a am tamit ay mbokk yu bees bien que nag nitu démb ak nitu tey duñu benn parce que ki fi newoon démb ba ba dara dootul dara kooku doo ko yemaleeg nit ndax ki ba xam bu metti woon du daw mais ki yamut ak kenn kenn du ko yemale kenn mais nit looy gën a dem rek war naa mën a am luy gën a yaatu ci sa géew di gën a yaatal quoi parce que làmb nii bu staff bi xaw ma li ko digal nag parce que man bokkuma ci staffam sama nit la bu ma ko romboon léegi day taxaw ne ma làmbaloo kaay ñu communier waxtaan amul problème àdduna Baye Fall la mais lañ ko digal est ce que loolu tamit arrangé na ko bu fekkee dañ na ko xaaral Modou est ce est loolu tamit lépp dañ ci question la buñ ci bu ñuy posé wu mhm. mais làmb la woon daal daanu na daanu na mhm. léegi ñu ngi koy ñaanal yàlla gën kaa booleeg ay nitam mhm. mu gën a ànd ak ñoom ndax ànd bi dëgg la te yàgg na si ñoom gën a saafonte ñoom defet bi yem ci moom yàlla ubbil ko ay ndami ndami ndam ba lim doon séentu keroog amu ko yàlla defal ko ko beneen jour làmb la daanu na daanu na waaye fi may njëkkee ak ñëw mooy dafa daanu pikin yëngu yaakaar naa ne keroog mu daanoo ci guddi gi am na nu booy Ama Baldé def la ñu def biir kër Dégol waaw non defuñu dara biir kër Dégol xam nga ay détail la rek xam nga Ama du ne kenn demal yàq kër jàmbur mm-hmm. Ama xam na la ci yor kër xam na la ci famille xam na la ci yor kër xam na la ci soutien de famille ndax moom moom la te benn la fa mm-hmm. benn la fa ah, waaw te jàmbaar la ci waaram tamit mm-hmm. Ama du ne kenn demal yàq kër jàmbur Kumba Baldé du ne kenn demal yàq Zil du ne kenn demal yàq demal yàq xam nga demal yàq ak wax jooju ak diw moo jaay diw ak diw moo lii lii loolu feneen lay jóge si dañoo ci kër waaw dinaa si ñëw ñëw nañ fa am na ñu fa jot a ñëw mais xam nga liñ naan àdduna euh, tey démb ko waral démb moo waral tey te tey mooy waral suba te suba mooy waral ginnaaw ëllëg ama amul benn xel ñaar ci booy ñaar magam wax na ko bi coow li njëkkee am rumeur bi njëkk a daw man def naa ci sorti defaat ci sorti ama toog na def sorteem wax de booy ñaar defal na ma nangam ak nangam ak nangam lim wax xam nga loolu ku gore moo ko mën mënoon na gëmm loolu waa daa di goree di mais li ko boo ñaar defal ak yooyu xëy na ñoom ñaar la nit waru koo yëg sax seen biir rek la waree am yam ku ko yëg rek ama moo la koy wax keneen waaye seen biir la yam ndax boo ñag mi nga ko defee la ci pare waaye ama gore ak ak ak ak fétali ak xam ni kii sama nit la te lim may defal gëm na ko ak reconnaissance ak yor xolu taalibe xolu julit moo tax mu mën a reconnaître loolu wax si Boy Niang Kumba Baldé tamit toog wax si Pokola wax ni ko booy Niang di defal yëpp xam nga ñooñu kon du ñu am arrière pensée ci yow mais ka toll ci àll ba nga xam ni kooku su ama mayee ti day sëqatoo su ama doon sànni ay biir day sëqatoo ama du ne ko kaay lii laay def ama du ne ko lii laa doon def ama du ne ko lii laa séq ak fii laa jëm sama lii la ñu war a waxtaanee combat nangam mooy taxaw wala lii wala laa koo xam ne maanaam ab sagaru pantre la am pikin boo xam ne 30 000 lay fay wala 25 000 jóge ca àll ba ñëw yor làmmiñam wu rëy ak bëgg a féewale bëgg a tas bëgg a jaxase ama kenn mënu koo jaxasee ak booy ñaan booy ñaan ndam la yéene woon ama barke seena seex saat bi ak sama bakkanu yaay yàlla bu mu lekk sama wërsëg yàlla bu mu ma ñaanal yàlla bu mu ma gërëm booy ñang ndam la yéene ama su ko booy ñang yéenewul ama yàlla bu ma sama yaay gërëm man làmbaloog mi wax ak yow yàlla bu mu ma ñaanal àdduna ak alaaxira ndam la ko yéene te xam na xam nga nekk li sa xol du nëbbu nit nekk sa xol bu dee ay ay fen la sax bis dina ñëw nga def réaction boo xam ne ku la xool dina xam ne yow lii nga doon camoufler gëmoo ko mais boo ñëw loolu moo ne ci xolam te du baadoo du workat du jaam du nit koo xam ni day xañ ki mu dëkkal wala muy yor dara ñun ñii rek dëkk ak moom sax mi ñi jëriñ ci côté boo xam ne yenn saa yi sax mbokkam taxaw mu jël ñu teg ñu foo xam ne tegu ko fa parce que xam nañu ñun jëriñ nañ ko démb tey di doog a ñëw xam nañ ne ànd nañoo moom ba dara nekku fa ba tey ñëw mm-hmm. yemalew ñoog dara amuñu benn problème boo xam ne dinañ ko am te du ci taxaw suba ngoon guddeeg ba ci xar ci tànkutu wéyam mm-hmm. waxuma koo xam ne tamit yéen a defandoo lépp Pikine àndandoo premier voyage Italie bokkulal bi ngeen ñibbisi ku ne yóbbu booy amul benn arrière pensée bu muy am ci digganteem ak Ama te tamit combat beeg Modou Lo amu ci lenn lu ci ciy xalaat ni Ama moom lay yéene ndam te waa kër Ama tamit moom la ñuy yéene ndam ndax Pikine benn bopp la waxkat yi ak seytaane yi ak jaxasekat yi ñooy jéem a yàq lamba a jeex na ñu ñëw jubal ca kër ga jubal di ko taxaw di yuuxu seen i yuuxu sànni seeni i xeer di yuuxu ay ñoo ko jaay dëmm yi ngeen doon nangam sàngam xam nga loolu naay sul mais tamit doomu aadama mënoo bañ wax parce que yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam def na fi lu ah loo na mbët dox doxaloon na garab xar na weer te tarawul ñëpp ànduñoo ak moom ay mbokkam ñi ko njëkkoon a contre ay mbokkam si lañ bokk sëñ Touba julli na si géej gi ñëpp ne ñu ko yow a dëgg-dëgg Yékini daan na ba 15 ans daanoo doon 8 ans roi des arènes kenn ñëpp nanguluñu ko doomu aadama ñëpp mënuñu laa nangul di nga gis koo xam ne da lay contre jaaree ko foofu pour wax lële mais bi booy dikkee di sànni seen i xeer rek yooyu tamit doomu aadama doo bàyyi sa bopp parce que booba père tamit jug na def na ay démarches am responsable la mag la kër gi du kër goo xam ne tamit da koo for booy ñaa foru ko dafa yeewu fajar ñaata yoon entraîné ba dee bëre ba dee toj fu nekk bëre ba dee takk biiram dëkk si loyaas ñaata at ba xëy suba yàlla dogal mu tabax këram bi booy ñaa tabax këram kenn fekk ko ci ci avance Sa Thiès da jënd avance na jënd kër ñu pare ci Sa Thiès reliquat bi mu àggale si këram takk jabaram tuxu ñëpp xamee ko ko kon fowul ba taxawal kër gi te kër gi du ciment ak fer ak beto rek moo ko taxawal du n'importe kër kër de du kër goo xam ne ciment ak feer ak ndox rek a ko taxawal ba ko jóg ne da ngay yàq de parce que Serigne Touba kër googu nga jug ne da nga koy yàq si boo tëddee ñetti fan sax dara dalu la santal yàlla bu baax père ba mu jógee def na li mu war a def ah défendre na boppam te loolu mu défendre boppam ku mu fa dal bal perdu wala hasard da ngay muñ rek perte ndax jug na avertir wax ay doléance am wax képp bu ko songu këram loolu la fa fekk rek yow la te gars yi tamit ña fa woon mbër yaa nga fa woon ñëpp toog fa lañ seetaanee làmb ji mbër invité leen ñu añee fa toog seetaan làmb ji comme affaire de copain nii mhm. toog nañ kër ga ku fa ñëw ku bëgg jàmm nag baal kër ga parce la fa nekk moom moo gën a metti liy jóge ci ñoom di ñëw ci kër gi mhm. waaw kër gi du kër goo xam ni ay caaxaan ko taxawal mbër mi daal liggéey ba dee taxawal ko yóbbu ndeyam ak baayam ba pare continuer leer gi di daw si ñoom loolu lay ñaan yàlla loolu la. ba tey ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo di combat bi ñu jëm dimanche Tapha ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène ñaari mbër yooyu noo ko gis waaw Tapha Tine Eumeu Sène combat bu équilibré la bien que nag Tapha par avec lavantage avantage des pronostics ci par ci taayam ak taxawaayam ak yooyu avant les avantage la si am parce que moo gën a doon ndaw moo ëpp taay moo ëpp taxawaay. mais Eumeu Sène dafa yàgg a bëre ci làmb te tamit poids lourd mosu koo daan man gisaguma lourd bu toog ci biiru Eumeu Sène hmm? waaw bu kenn xeeb Eumeu tamit ci làmb jooju ku ne mën ngaa daan mais Eumeu Sène toogagul ci biiram hmm. waaw gis nga ko tàkkusaanam ak Holyfield hmm. ku ne gis na ko mook su lay topp seetaan ngeen tàkkusaanam ak Simel Faye seen masinil bu yàgg bu metti ba mook Simel Faye te Simel daan naqaree bëreel gis ngeen tàkkusaanam ak Balla Gaye 2 ñaari yoon aller retour tàkkusaanam ak Bombardier aller retour tàkkusaanam ak Lac de Guiers yaa ngi dégg tànku saanama Gris Bordeaux aller retour yaa ngi dégg kon mu Eumeu Sène luur jaaxalu ko luur bi ko fi daan ci poids lourd yi ki bokk ci cour des grands daan ko du luur dañoo tolloo taay ñu bëre ma koy daan kon mën na daan ku ne Eumeu Sène mën na daan ku ne ndax dafa for làmb téye ko ci loxoom dugal ko ci biir poosam takk poos bi dë ba mu dëgër këcc waaw mën naa ne da koo caabi sax tëj waaw dafa fawee làmb tarbiyu làmb bëre ba toj bëre def championnat d'Afrique ba sonn toj mbapat toog ay juróomi at kenn mënu koo daan maanaam dafa mokkal métier mi ngi mel ne apprenti bu dugg ci atelier di tarbiyu di teel a tijji 7 heures nga ñëw tijji place bi 19 heures bale raxas doxi yoon neen fomp añ bi bu tegee nga nga toog gars añ ba pare nga dajalewaat bool yi dafa tarbiyu làmb ba téye làmb ci loxoom amul ku mënul daan dafaatin tamit mbër la moo xam ni fa mu jugee woon ak fa mu jëm am na différence hmm. parce que nekkoon na ay xat-xat ak ay njuumte yokku mbooloom yokk cere dolli ñeex bawal bawal yi jug nekk si ginnaawam di ko encadré di ko fulaal di ko dooleel mu yokk mbooloom yokk tamit li mu daan bëree parce que bëre bi mu daan bëre sax yenn erreur yi mu daan def gëj na koo def léegi day raam di direeku buy dóor ku da koy natt xool ko te balaa dóor daa jàpp teg na bëreem si yoon ko waa façon bëreem changé na mais bëre bu bënn ak bëre bu ngéwéle ak bëre bu soxor mënoo toll ba fii di ko jàng bëre bu bënn moom nekkul ci tafaatin bu dëgg day dëgg ah. ama seen a gën a tarbi yu bëre moo ko dàq bëre fu mooy avantage combat waaw avantage bu bëre ci làmb ji tafaatan tafaatin avantage am si làmb ji lenn kese kese la mooy mu may ëma distance garde distance bi ak bagarre à distance wala ñu jàppante ci suuf mu kor ëma seen sens boobu am na ko ëma seen di ko song jotu ko mu capté ko dajeeg moom ci suuf wala ñu bagaar ci kaw corps boo xam ne dañoo am distance mhm. ñu jëflante mu tuuse ko mhm. loolu na nekk mais su fekkee dañoo tampaloo xëy suba bëre bëre bu ngéwéle amul taxaw ñu def am jóob joxal njaay xam nga bu ñu defee loolu combat moo arrangé Eumeu mooy mu wàññi distance bi jege tafaatin bu ko tooñee bu jugee mu daw bëreeg moom bëre ko benn song dama lay jox exemple ci combat Ziza bi keroog mook Daouda Sandis ñooxu ko taf ko tegal ko écran bu loxoom jugee nga bëtt ko bëreeg moom combat bi da koy résumé ci benn song ñaari song jàppante bi benn songu ñaari songu cinq kele bu ci dee am sax benn songu bu njëkk bi da koo war a jeexal ci côté Eumeu Sène mhm. su dee côté Tapha dafa war a maintenir distance am jël ay gardam xool Eumeu Sène étudier ko denc droit am nga xam ne bu ko dalee mën na jeexal làmb ji. Mhm. may ko distance bëreeg moom ci bëre boo xam ni da nga koy may temps ba réfléchir xool combat bi liir ko. ba mën koo dégg ko waaw. loolu mooy làmb ji ku te mën nga daan sa morom nag ñoom ñaar waaw mais Eumeu seen yàlla na ko yàlla may ndam parce que ñun Pikine lañu Pikine lañu faral yàlla na Eumeu am am ndam lu seddu guy waaw jërëjëf làmbalo kàddu gu mujj ana lan ngay tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñëpp di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi di ñaan axlu làmb tamit yàlla na yàlla tàppe xol yëpp juboole ñëpp muy mbër muy ménager muy waa CNG muy force de l'ordre yi muy journaliste yi muy képp kuy safoo làmb amateur yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp maa ngi sant Pape Sarr bu baax di ko gërëm sama waay di gërëm Gora Ba di gërëm Daouda Mbaye euh, bu Daat Matar Fall Bamba Café di gërëm tamit Ndioba Ndiaye sama copain Seydi Dial Sène maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di gërëm Souleymane Mayga borom Mayga 5 étoiles maa ngi koy gërëm Mayga 5 étoiles parce que su ma ko tuddul mën na ma mere di gërëm sa cinq étoiles yi maa ngi koy gërëm may nga bu neex may nga bu saf la maa ngi koy gërëm bu baax a baax di di wax gars yi ñi ñëw ci moom nag mbaar waaw gars yi ñun ñëpp fi lañ njëkkee maa ngi koy ñaanal bu baax waaw di gërëm tamit euh, fañ defee woon émission bi keroog ndaw si am ko Yacine borom salon sopp Serigne Saliou maa ngi koy ñaanal bu baax di ko gërëm di xamal ne xale jigéen ñi tamit foofu képp ku fa dem yàqoo sa xaalis sànni woo ko mm-hmm. Yacine sopp Serigne Saliou ma nga fa képp ku bëgg sa alaaji bañ a xooli keneen wala nga bëgg sa waa ji ngay àndal bañ a xooli keneen del dem mu lay defaral ba mu baax di sant booy ñaa bu baax a baax a baax di ko ñaanal combat bi mu jëm yàlla may ko ci lu kawe njortam nga xam ne bu ñuy dem Nimzaat dañuy yóbbaale couronne bi surtout seex na seex saat bu dégg nga surtout seex yërëm du mbaal surtout alaaj sàmmandu kumaan sekk waaw fi le fils de Dogol maa ngi koy ñaanal bu baax borom mafia bi joobewul noonu borom sàppaaral borom dal jàmm borom bu jeexee rek jeex na borom 5000 baax na waaye 10 000 na ko gën borom lu mu lëndëm lëndëm bukki for bëy maa ngi koy sant bu baax borom ñor toobee gën yëngal gësam maa ngi koy gërëm di gërëm jabaram day mari di sant père bu baax père Degol ak mère Anna ñoom Assane Abdou Kouli ay ñoom Zam maa ngi gërëm ñëpp macha allah bàyyiwuma kenn Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal AS Pikine dóor géejawaay waaw tay jii la yàlla na ko AS Pikine gañe ndax ñu Pikine rek la ñu gëm di sant waa Thiès bu baax nag waa Arcos maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw jërë ngeen jëf mbokk yi làmbaloog la ñu dalaloon gis ngeen ko ci li nga xam ne moom la développé ci làmb jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf